mooy euh, ku nekkoon góor ba nekkatul góor maanaam li tax nekkul góor yaa ko ci def. Euh, da nga seet si euh, fajkat te faj yombul faj yombul fajkat dëgg day gis soo mënta gis nekkoo fajkat. moo tax man dama lay wax ne man gëstuwuma xam-xam parce que au oh, moom mbokk moo xam ni dafay faj li ma yor euh, c'est don de Dieu la mayu yàlla su ma nee jàkk xool la dinaa tirer leçon ci yow gis def ci yow bilan xam léegi da nga def bilan ci ay appareil ay ay ay ay machine mais man samay bët mooy samay bilan dama naan la jàkk gis ci yow loo xam ni ah ku yàlla baaxalu dëgg wala ku yàlla mayul dëgg mënu koo gis moo tax ma ne la faj dafa ànd ak gis saa boo gisul rek mënoo faj saa gisul mënoo faj kàttan nag da koy gis comme naa Omar mi ngeen àndal su ma ko xoolee jàkk damay tiré ne kii lii moo manqué ci moom xam nga léegi euh, lekk gi baaxatul dund bi moo baaxatul le régime alimentaire. Je euh, suis sur internet. Je suis allé sur le internet. Je suis allé sur le Sénégalais, si vous venez tout le monde va Parce que nous avons une force intérieure dans les bires. Mais l'autre ça fait plus de 15 ans, 12 ans. 15 ans, 12 ans. Mais force euh, Sénégalais, nous avons une force. Nous avons une force. Madame Lek, parce que tout le monde est créé plus artificiel euh, Nord ak nawet ak seen xeetu ay ingrédients xeetu xeetu xeetu xeetu yu sedd yu ñuy naan te naturel léegi euh, yi lekk euh, baaxatul ceeb bi noonu euh, maanaam li cons li ngay consommer amatul benn ferñeent amatul benn ci doomu aadama bi moo amatuñ c'est une phénomène mondial c'est une crise partout dans le monde entier sénégalais bu ñu leen cëpp euro dañ leen di njëkkante mais léegi soxlaatuñu leen parce que dund bi am France moo am Sénégal yaa ngi dégg produit yi ñoral day jóge France ñëw Sénégal France di jël si li ñuy li ñuy bay di yóbbuwaat léegi c'est le même régime alimentaire moo am moo tax gis góor dëgg yombul fan yi passé maa ngi dem ko tey dëkk bu ñu wax Kalale ça fait même pas un mois rek euh, ci côté Barankounda en Gambie bi ma demee ci dëkk àll bi. maa ngi fekk euh, xale yu góor yi euh, moins de 30 ans 40 ans tok ci ben euh, taatu garab gu reuy gu mag ñu koy wax ab date manam xale yu góor fofu lañu dajé daje beneen est-ce ñom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi dañ fa di gis xale bu góor bu neew kattan dañ am noonu loolu gisuñ ko ma ma doxantu ci grand place pa yi ma laaj ko ñeneen fi ki am 80 ans 90 ans mi ngi sey mais dañu nek ci deug forêt bi la maam yi daan dundee bu ñëk mo fa am téré yi mbuum duur cere yi mbuumu saap saap cere yi di di di dem ci gétt gi ci ginnaaw kër gi rat ci meew mi di naan xam nga duñ jël benn produit chimique motax katan du chaxan ci télévision lay wax ngeen di ma caméra ay kilifa yu mag, ay professeur de santé yu mag sama ginnaaw lañ botu parce que xam-xam Kiko yalla may ak kiko sa baye may wala sa mam may la mënu bokku waaw man li ma yor maa ko moom sama yëf la kàttan nag du caaxaan euh, moo tax ma ne la gis nga bant bi euh, sunu baay di maître Abdoulaye Wade di ancien président da la République du Sénégal xam na bant bi. bant bi mën na créer gasoil bant bi day def calcium magnésium dëgëral yaram dëgëral yax déparasiter ay organes may la dooley biir. bu dee cadre góor cadre jigéen dafay régler perte blanche régler euh, régler règle du euh, euh, règle am normal teg ci day day defar teint jigéen ak teint góor yaa ngi dégg day day day day day ubbi say organe say hanche gën a ñëw say wen gën a ñëw say yaram gën a ñëw maanaam daf lay jox beneen nit ci kaw ngay lekk dugub guddi moo xam fonde moo xam cereeg meew mo xam laax mo xam façon faire bu ne mais lu boo 21 à partir de minuit da ngay lekk dugub Je la boobaa la garab bi def effet man dina xey Il Dakar euh, lu mat personnes par jour dañ ma problème ngor ci à l'âge de 25 euh, ans j'ai 50 ans xam nga euh, da ngay da ngay paa buy ngénte cinquante ans jëm kaw léegi gisatoo paa buy ngénte waxal yaa ngi gis paa buy ngénte sa koñ dama mos toog génn góor goo xam ni euh, ëpp na la téeméeri at ma laaj ko secret mu ci ci secret mu wax ma ko mu ne ma garab bu ñuy wax xunjal dafa dafa dafa dafa am yu mu koy booleel di ko naan mais par quinze jours la koy naan. chaque 15 jours bobu ab garab la bo xamni dafa gaaw ci tekki manam sa biir dara du ci nek mom lay utiliser moo te dafa bari motax euh, nit ku ne war nay parce que nit Dundu day tawat mënoo am katan bo lekul ba suur mënoo am katan bo dee xaar di am stress mënoo am katan katan faaw nga am conscience tranquille boo ko judduwaalee dafa am luñu ñuy wax judduwaale mën juddu am malformation pénis mën na juddu mais bu amé bo amee 13 ans 15 ans da fay majeur da war a dafa war bu sentir bopam nak kooku mën am ne dafa ko judduwaale kooku mën naa réussir mën échec. ba ci man book xam nga parfois da ngay dégg fajkat ne la boo ko jurwaale mënu ma ko faj man du wax loolu fajkat boo dem daan la boo ko judduwaalee mënu laa faj loolu lañ lay wax man du wax loolu man dama naan la même boo ko judduwaalee sax ñëwal ma essayer. kon Afrique de l'Ouest kàttanu góor gisuma ko ma ci sut te je suis sportif su ma gisee ko man dama koy wax. kàttanu góor laa wax waaw ah, ku américain yi di gëstu ci yow kooku doo coomo soxna si. yow la américain yi di gëstu si yow. waaw ci sama xam-xam ci wàllu sexuel ak ci yeneen maladie ku ñuy wax sëriñ Saliou Balde en Amérique xam na ci dara soxna yu bari ñooy tàpp seen boroom kër xam nga tàpp. tàpp mooy. Euh, ku nekkoon góor ba nekkatul góor maanaam li tax nekkul góor yaa ko ci def bu dee mala dañuy éliminer suuf yi li wax <laughs> moom la ñuy éliminer dañ koy képp ak tañaat mais léegi jigéen ñi ne léegi ñooy ñooy def bouillon bi ci ci togg bi togg bi yaa trop des ingrédients hmm? am na am na benn bouillon booy euh, booy xóoyal rek ah boo ko joxee xar dootu sëyati te xanaa xamoo xaram nit dañoo bokk organisme. li faj xar ci tubaab mën na faj nit man éleveur laa xam naa li may def xam naa li may wax parce que euh, lu ne lu ne dama koy gis rek sama bët di gëstu ci domaine yooyu léegi ci cadre euh, euh, garabu kàttan dafa am bu am effet secondaire boo xam ne boo ko naanee léegi sa boppi sa bopp bi day day day tàng. mais di metti yaram bi tamit day am chaleur tàngooru yaram mais day rouge di nga sey nak bu baax bu day bu dajante bi mais fay def day retourner wat ci ci ak pancréas te sa hypertension nga dem AVC wala garabu bu ñu bu bu ñu jëlee bitim réew ci wàllu ngóoro c'est pas bon parce que euh, tàng gi muy tàng sa yaram di metti sa bopp bi lu mën na la rey ñaata paañoo faatu te dañoo julli fajar gi génn ci jàkka ji dem ci kër gi faatu ñaata nit ñoo ne seen ñoo ne seen barabu liggéeyukaay faatu fa. am na sax koo xam ne moom dañ ko dañ ko fekk ci kaw so ci kaw ci kaw ma rafet ci kaw ci kaw soxna ci kaw jigéen mu faatu ci kawam gis nga misaal yi may wax. dañ ko fekk ci kaw jigéen journaliste bi bindoon nañ ko ci at yi weesu ci kaw jigéen mu faatu man li may wax ne wax de des années garabu kàttan bu dee bi ñu importé la du du du cosaan baaxul mais ñi néew kàttan ñoo ko yóbbee seen bopp am na cas de surbation di fooy sa awra euh, boo nee bay fooy sa bopp awra nga takk soxna su nekkee yow mënoo bàyyi masturbation parce que man am man dama koy traité ci ci ci psychologiquement ak produit yooyu jël mais soo ko mënta bàyyi boo wooree mu dañ am na ñoo xamante ni ñi ngi ñi ngi woor at mi yëpp te masturbation lañu xeex mu mu mu muy ay jeunes yu yu gëm yàlla. yoo xam ni euh, bëgguñoo mooy yàlla moo tax ñu ñu euh, ñuy woor grace à masturbation loolu am na ci nit ñi te masturbation baaxul euh, di sëy di di sëy guddi gi te xamoo ki ngay sëyal wala nga xam ki ngay sëyal soo ko def lu bari par semaine di nga dem ba boo jóglee dëgër te ma wax la awra problème mu sidit moom moom moom moo tax du dëgër. wala problème mu deret wala mbindu yàlla ay dégg wala mbindu yàlla euh, waxoon naa damay damay damay damay damay dufal awra. yokk ko. non boo nee yokk dafay dafay indi complication. Euh, parce que ay jigéen ñoo xam ay góor yuy yokk euh, ma wax ko ci Dakar Actu. Uh-huh. képp ku dëkk Sénégal ne da yokk awra teel bant bi damay yokk awra amul c'est pas vrai. ñëpp nag ci Sénégal muy góor muy jigéen amul kenn ku mën a yokk awra ne la teel bant bi kon yokk awra daal amul. amul jot naa ay clients yu jóge ña waxoon ci télévision yi te man Sénégal laa dëkk damaa saf sàpp ci senegal sama yaay cawlaay la sama baay naar la li may wax dama koy teg fu wóor ak fu wér parce que duma ma je suis un homme de vérité du ma caaxaan amul kenn ku nekk ci Sénégal di yokk awra c'est pas vrai. mais léegi euh, pini boobu man dama ko defal sport un entraînement xam nga boo dee dem salle de musculation di def biceps loxo bi day rëy day rëy def biceps rek wala nga def appui avant loxo bi day rëy léegi man da ngay jël awra bi. Euh, diw ci mooy bii wane naa ko télé Sénégal yëpp xam nañ xam nañ bii amul benn télévision bu ne Sénégal taxamul produit bi lii lan la. ki mooy gereesu njamala gi. njamala. njamala. Euh, gerees bi boo ko tegoon ci naaj dix ans du seey. ba doon ba ba doon ba Sabadola dem ba Tambacounda nga ne foofu la naaj bi gën a naa takkarnaase soo ko fa soo ko fa weeroon du seey. nii bu weex la composition bi mooy tax mu ñuul ndax dama koy togg togg rek taal sa gaz bu mu sës moo ko mën a lakk mu nekk diw pour ñu mën ko utiliser man da ngay jël diw bi rek diw xëcc fay sport awra peni dañ koy defal sport ci man bokk sama xam-xam ci li ma man mais jëlal bant bi yokk ko. non man loolu duma ko def man damay defal sport euh, nga diw xëcc boo neexee matin au soir bu neexee guddi ba guddi nga diw xëcc boo diwee di xëcc diw di xëcc euh, plusieurs semaines dina gis ne awra bi mi ngi am mi ngi mi ngi duuf luy duuf mooy xar bu am yàpp nii rëy awra bi day rëyee nii day ubbeeku largement largeur mais longueur. sirit bi joni awra bi sirit bobu mom la frotté bi di traité ci bir ak ay garab yoy nan comme garab bi ñu wax sang-sang moy raxas deret yok deret filtre ay veine def circulation sanguine ak garab bu ñu wax ndànk-ndànk garab boo xam day toggaat sa carte par ñet yoyu ak ben garabu bu city bo ne city bu toké la moy jindi toké euh, toké tooke yaram bi yépp ñet produit bu ñu ko coupler moy tax euh, sirit bi gëna mëna jël deret boba bu la jégué rek awra bi day jug ba da nga naan foko jele mais su dina rafet dina duuf tout rafet parce que euh, goor ñi ci goor ci monde bi yëpp kenn bokkliwu ko sa ak sa morom awra dafa sensible dafa sensible trop trop trop même problème peni c'est c'est un phénomène mondial parce que goor ñi ne ci àdduna bi yëpp goor gu ak awram day sew toll bant bi am ñoo xam ne day day day sew tuuti maanaam dañuy am na góor ñu am xottu gerte lu toll nii xottu gerte xam ko xottu gerte awra mën naa tuuti lool mais su jógee tojam réew su jógee ah soxna sa nga séqal dina tiit non si parce que sidit la veine la veine ak élastique ñoo yem man su ma nee damay duufal awra ñu bari war nañ ko mën a gëm. parce que naar dafa xam yàpp xam sirit hmm? euh, boo jëlee boo jëlee boo euh, bu ñu defaree veine boobu soo jugalee dangay ngay tiit parce que yokk naa sa deret euh, da ngay def sport moo xam doxantu bi moo xam dem dem salle de musculation wala dem dawi géej mais lekk bi bi ci kër gi doo ko lekk samedi ak dimanche nga ciy lekk. mais lundi ba vendredi sa régime ngay am. régime bi dafa se dafa cher lool ah mais boo amee mooy bi jar na ko. Euh, waaw euh, comme comme comme comme bëccëg bi nii euh, buñ ma ne la saafal ay jën mais jën bi dañ koy dugal ci ndox mu tàng génne ko yàpp dañ koy dugal ci ndox mu tàng génne ko. ginaar dañ koy dóor ci ndoom tànk génne ko saaf ko ak diwu olive wala ñu saaf ko ci grillage bi noonu fekk jóge na ci ndox bu tàng bi nga doog ko saaf ci grillage wala ci diwu olive yooyu ngay faral di añee mais léegi amul cholestérol amul cholestérol ak guddi gi nga am cere tey bu saab-saab tey bu mbuum nduur tey bu caxat bi yoon nga def bu ànd ak euh, supame laaxu laaxu basaab laaxu nda laaxu daqaar laaxu la la laax yu doy waar. Mm-hmm. ngurbaan mm-hmm. laaxu na tëri yooyu nga koy lekk guddi nga parfois guddi nga lekk benn poire euh, am na solo yooyu boo ko defoon hmm, euh, premier jour bi nga njëkkee régime boo seeyee gis changement bi gis gis bi am na tuuti changement xaaxama régime du caaxaan jàngoro bi gën a bi gën a mag ci àdduna bu la jaloon su ma la tëggalee régime jàngoro bi du la rey. man naa waxoon benn anecdote en 2007 ma ne leen képp ku képp ku képp ku régime rey rek ci jabet ni nga régime moom moo baaxul parce que jën bi dafa am dafa dafa dafa am tooke seulement jën bu ñuul mais da koy da ngay baxal ndox def ko ci tooke bi dañ yàpp yi surtout ma yàpp bëy dafa am dangar da ko def ci ndox mu génn ak yàpp bu mu di doon pour nga génne cholestérol bi da nga koy dugg ci ndox mu tàng léegi affaire bi dafa affaire léegi affaire léegi bu duggee ci ndox mu tàng ba génn moo ko këyit ñooy yem moo ko ngooñ ngooñu xar yi ñooy yem yàpp duggee ci ndox ba génn këyit la rek presque parce que ngooñ moko ko liggéey loolu loolu loolu affaire bi régime régime mais régime bi mo yombul soxna ci am nak ay nit yu koy def ma gis ni ma gis ni ñu ngi koy def te ni gis résultat te ma ma régime bi. man mohammed Fall naru seigne fallilu Mbacké deuk Mbacké Bawal di taalibe Serigne Abdoul Fatah fallilu ah Dakaractu de yaakaar naa mooy site bi gën a mag ci site yi waaw site la boo xam ni maa ba ma ba ma ñaanee moom télévision yàgg na waaw maa ngi ñaan nag moom télévision boo xam ni day nekk Dakar TV télévision bu mag bu mag lay doon incha allah euh, maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp képp ku ma sol tamit man duma nekk Dakar noor no nawet du nekk Dakar nawet ak koor. man maa ngi mbàkke ci àll bi mais bu dul koor bu dul bu dul koor bu dul nawet maa ngi dakaar dama demati sama appartement dem mais damay ñëwaat mais nag foo foo soxlaa garab Dakar ma envoyé la ko ci vingt quatre heures su ma fi nekkoon noonu lay noonu lay liggéeyee euh, sama numéro téléphone mooy 77 388 17 17 77 388 17 17. Uh, moom moo moom mooy moom moo am whatsapp bi ak imo beeg yooyu muy logiciel yooyu ñuy wootee yëpp am na ko sama tigo 76 589 33 33 76 589 33 33 waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan uh, liñ fi wax ku ci uh, xaw teggin beeg yooyu ñu jéggal ñu ci dañuy sexe amul amul complexe waaw ñu xam ne loolu daal moo ci tegginewul te ñu ngi ciy jégalu xam ne liggéey bi moo ko waral waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.